alhamdulilah ñu ñëw leen seen revue de presse lamb ajumay tay jii la ca gën a fës suñu lamb mu ngi ñëwaat ci carrière Eumeu Sène la ko gën a propulsé la ko gën a yóbbu ca kaw bokk na ci ñetti ndam yi may bëgg lim looloo ko gën a jàllale looloo ko ci kaw mooy digganteem ak Balla Gaye 2 digganteem ak Gris Bordeaux ak digganteem ak lag de Guiers ñetti combat yi ñetti ndam yim ci am suñu lamb mu ñu ne moo ko gën a yóbbu ci kaw moom Eumeu Sène moo gën a defal palmarèsam moo ko gën a riisal ginnaaw loolu keneen ku bëgg loo xam si ni moo di ndam moo di Baba Jaxal suñu lamb mu ñu xamal ne xale bu Jari Birama Coor bi dafa bokk ci crème mu làmb da di ndaanaan te day mobiliser moo tax mooy xam ne digganteem ak Bébé Bismi lépp lu mu laaj ngir mu mën caa am ndam rek loole pare na pour def ko ndaxte ndam li la bëgg a yóbbu muy ci xeex bi muy ci bëre bi ngañ jaañ mag ñi analyser diggante soq ak franc suñu làmb muñ xamal ne ma ngay xam ne soq xeex ba mu war a xeex xeex bu stratégique la war a doon dafa war a xeex waaye xeex bi daf cee war de sóoraale ki nga xam si ni moo di Franc ndax bu bëggee ñëw rek jàppante ak moom boobaa mun na bu ñëwee xeex ak moom wàññi ko pare door na am avantage moom soq ginnaaw loolu keneen ku analyser moom Lamine Golo Lamine Faye bu Balla Gaye 2 suñu làmb mu ñu xamal ne muy coach su Youssou Ndour ma ngay xam ne Mbaye Diouf amul benn sens ci kanamu ki nga xam si ni moo di Youssou Ndour muy ci xeex bi muy ci bëre bi ndaxte bu ko yuusu jàppee rek mu daal di jeex ndax doolay ndaw te combat bi l' expérience face à la jeunesse la ginnaaw loolu ñu ñëw ci keneen ku moo di Fadam 2 suñu ñu xamal ne diggante Garga 2 ak Mama la analyser mooy xam le ne ci wàllum xeex bi ki nga xam si ni moo di Mama Lamine la ci arrangé waaye bu ñëwee ci wàllum bëre bi ki nga xam si ni moo di Garga 2 moom la ci arrangé ginnaaw ñëw ci promoteur bi ko tëgg Ibrahima Diop borom Kajoor production suñu làmb ñu xamal ne moom mi ngi jëm ci dernier réglage yi ndax làmb ci dimanche la kon mu ngi jëm ci dernière glace yi daanaka pare na ko ki nga xam si ni moo di Pape Sarr nag di doomi Pikine suñu làmb ñu ngi xamal ne moom dañ ko cay sargal daf ca am drapeau ndax combat toujours prêt bu olympique bu ngor digganteem mag bébé Balla bu Pikine mbooloo moom la ñu tuddee boobule combat ki nga xam si ni moo di góorandooy tamit président jeunes amateurs suñu làmb ñu xamal tuddee nañ ko ci combat diggante Yile bu Lansar ak Tekk Yël daan bu Pape Dambay ginnaaw loolu suñu làmb mu ñu xamal ne Las Badiane tamit nekkoon na fi promoteur Assane Ndiaye Bawol production da ko tuddee drapeau dimanche bi nu jëm le 22 mai suñu làmb mu ñu xamal ne diggante Toubacouta ak Malen ñaan yi moom lañ ko tuddee Ndeye Ndiaye Tyson la dame de fer suñu làmb mu ñu xamal ne demoon na seetaani combat Baye Mandione Zarko te pare na pour defaatam retour ci retouram ci làmb ji ndax ma ngay xam ne lii di licence am mi ngi ko téye ba léegi kon pare na pour def retour. suñ làmb ñu xamal ne Baye Mandione moom keroog bi mu dugg ci làmb ji ay 17 heures dañ ko bloqué woon lool ca bunt ba yàgg na fa moom Baye Mandione di négocier ak ñi nga xam si ni ñoo di police yi suñu làmb ñu xamal ne lañ ca seetlu moo di Xaarim Njaay numéro 1 bu caaroy keroog nekkul woon ci côté Baye Mandione teewuloon waaye am na explication am na lu ko waral suñu làmb ñu xamal ne la waral benn grande sœur moo génn àdduna foofee ca Bawol fa la demoon ca nga xam si nii moo di ba moo tax ñëwul ca combat Baye Mandione ba suñu làmb mu ngi ñu xamal ne lu lu raar ci làmb wala loo xam si ne li mi am bariwul moo amoon keroog ci combat Baye ñoon Zarko ndax Zarko da doon xuloo ak ki nga xam si ni moo yor ci mukaayam ginnaaw loolu ñu dem fa nga xam si ni moo di su suñu làmb ñu xamal ne Sidi Jaxate moom muy tëgg diggante Ousmane Gandigal ak ki nga xam si ni moo di Boy Jaxaaw suñu làmb mu ñu xamal ne am na benn journaliste bu dëkk ca Thiès ma ngi koy xamal ne dangaa war indi couronne roi des arènes ndax lii combat roi ndax Ousmane Gandigal kenn mësu koo daan foofu ca Thiès loolu ñu daaneele ko ci xibaar bu neex bi ki nga xam si ni moo di Bébé Diène suñu làmb mu ñu xamal ne génn na fa mu nekkoon ca Ndungu Sine suñu làmb mu ñu xamal ne moom Bébé démb la génn ginnaaw bi mu defee un an neuf mois foofee nga xam si ni moo di ca prison ba suñu ñu xamale ñaar lañ ko doon toppee mooy affaire drogue ak li nga xam si ni mooy affaire faux billets ñu xamale ak li nga xam si ni mooy wàllum agression jël téléphone jàmbur foofee gi ginnaaw loolu suñu làmb ñu xamal ne ci lañ ko doon toppaat ci affaire faux billets ndax benn xaritam bu mu àndaloon di Zak da koo supporté woon ci moto xamale ban demee ci kanamu yoon loolee la Zak wax ne moom faux billets moom moo ko moomoon dafa wàccoon di ñibbi rek bébé jeen dab ko ci yoon bi yóbbaale ko suñu làmb ñu xam ne loolu moo balancer ki xam si ni moo di bébé jeen looloo ko setal suñu làmb ñu xamal ne kàddu yooyu ki nga xam si moo di Gora Ndoye président jeune amateur moo ko expliqué moo ko leeral suñu làmb ñu xamal ne njabootug làmb yëpp ñu ngi ko souhaité waat bonne carrière moom ki nga xam si ni moo di bébé te yàlla buñ ko déggati ci yu mel nii mu def carrière jàmm ginnaaw loolu ñu sant leen gërëm leen jox leen dig daje ni ki suba incha